suñ ko xoolee ci mbirum baatin ñun ñëpp xam nañu fa mu jógee ci Fatick jaar-jaaram en tant qu'ingénieur en tant que ministre en tant président de l'Assemblée nationale en tant que premier ministre en tant que président de l'Assemblée nationale loolu kéemtaan la loxo yàlla moo ci jaar mais aussi ba mu nekk président de la république mais li ci gën a yéeme yàlla xaar ba mu nekk président de la république li nga xam ne lii Senghor war na ko bataay gisu ko Ablaye Wade war na ko bataay gisu ko Abdou Diouf war na ko bataay gisu ko moom en tant que ingénieur yàlla jaarale ci loxoom vraiment Sénégal am pétrole am gaz. donc loolu mën nañu wax ne ku nga xam ne kii euh, yàlla moo ko jàppale xanaa taal bu yàlla taal sànni ci mënta gën leneen li ci des mooy yéen ñëpp gis ngeen ko su ma waxee ay bourse familiale su vraiment le du Sénégal mesdames et messieurs. de l'indépendance jusqu'à présent mon forage bon forage aussi.

bi ngeen jëlee ingénieur ba pare ingénieur boobu yéen a ngi koy fàttiku ba nga ne dëkk bi naroon na xar ñaar mooy président boobu fi jaaroon tegoon ay plan plan yàttal ba plan toggal plan Goana ba nga ne Goana bi ñu fàttiku mooy feccu salaam loolu rek lañ ci fàttiku mais ba mu ñëwee plan tàkkal boobu